والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فالعمى فجورا وتقوى قد أفلى من زكاها وقد هاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناعة الله وسقياه وكذبوهم وأقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه فلا يخاف عقباه البحث دك وهو moom إحياء الله الموتى dundalik sin borom ña faatu wa ihraajuhum ak génn leen min xuboorihim seeni bambeel ilal asri jëmal leen sa pangama wa yajibu dana war alal muslimi si jullit an yuminu bil baxasi mu gëm dek kama anna alayhi comme num nekkee si moom an yuminu bil xisaabi mu gëm konte allazi ka nga xam ne yamsulu fii dinal présenté al jinne jinne wal insi ak nit ña amaama rabbihim si seen kanam boroom li yajsiyahum ñu fay leen ahmalahum seeni jëf qaala taala yàlla bu kaa bi dafa wax ne saxaama allazina kafaru yéefari dañoo njottu ne an lan yubasu deesu leen dekkal qul bala waxal a kay wa rabbi sama boroom laa tubasunna dina leen dekkal summa la tunna ba unna topp may leeral bi ma amintum sa lañ doon jëf wa zalika loole yasirun lu yomb la alallahi sa yàlla والعاديات دبها فالموريات خدها فالمهيرات صبها فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul barakallah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 وجوه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 ثم إن علينا حسابهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yonent yàlla bu tedd bi dafa wax ne al muslimu jole man saliman muslimuna mooy ki musal julin ñi min lisaanihi si làmmiñam wa yadihi ak loxoom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 كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث القاسية وجوه يومئذ قاسقة عاملة نازبة تصلى نارا حامية تسعى من عين آنية ليس لهم دمام إلا من دين لا يسمن ولا يهني من جون وجوه يومئذ ناعمة لزيه راضية في جنة نادت أو الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مشكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله عذاب الأكبر إن علينا إيابهم ثم إن علينا gëm yonente ya waajibun julli li annahum ndaxte moo hudaa'ul basari mooy jubal nit ñi ilal xayri wa munkisuhun min sori min ad-dalaali ci ak réer adaw ayaaluhum فاضل زندم جميعا نم يبو لزهادة البصر تتهج مني في الدنيا والآخرة سيأدناك الظاهرة ومنهم بكن سنوب نوح نوح وإبراهيم عن إبراهيم وموسى موسى وعيسى عيسى ومحمد محمد الذي يرحمني هو مم إمامهم موسى إمام وهو لا يبني مول عزمي مول عزمي بارك الله بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم di bismillah. Bismillah. Xadim صدق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yonent Yàlla bu wax ne man akala képp ko lekk tahaman aw ñam faala mu wax alhamdulillahi lasi أطعمني هذا ورزقني من غير قول مني ولا قوة غفر له ما تقدم بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت مبدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد عن baarakallaa baarakallaa bintu jaxate jaaraama soxna fat jaxate yow si génn nga وتكون الجبال كالإهل المنفوس فأما من ثقلت tabarakallah soxna jaara ngeen tàcc ma bu baax a baax a baax a baax a eh, baax ñu ànd ak sëñ Fallou tabaarakallah ngeen ma ko bu baax a baax a baax a baax Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil hadri wa ma adraka ma laylatil hadri ليلة الحضر خير من الهلف سهر تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من كل أمر سلام يا تام الله الفجر بسم الله الرحمن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قيس بعث أسرى فقال لهم رسول الله نعمة الله وسقياه فكذبوا فأقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه بارك الله ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax kontaagal ko l'animateur a ci demal Aminata Ñang tarkalla bismillah moom moom du yàgg a ci Ñang bismillah doxalal ah. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يهلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السهر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة بارك الله ما شاء الله أول اعتدال awal amaam taraf amaam taraf ila sama jëb ila sama jëb sudóor amaam sudóor amaam miisaam taraf miisaam طرف واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة صدير صدرا صدير صدرا takbir. allahu akbar. takbir. allahu akbar. bisan takbir. sahedun sahedun màggal yàlla borom fii borom kun fayakun. isan takbir. sahedun sahedun màggal yàlla borom fii borom kun fayakun. taslim. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. intidaal eh, awwal. intidaa awwal رسول محمد هوي وهاب وهاب وراب الأنام صلاة خيار الأنام نبي رسول محمد هوي لسيد البرايا لسيد البرايا وسيد البشر وسيد الأرامل كراما akbar bismillah tabarfakal la ngeen tàccu xale yi bu baax a baax a baax a baax a baax eh, tabarfakal la loolu am na solo lool macha allah xol yëpp sedd nanu ci spectacle bi am na solo eh, tabarfakal la ñoon tagg seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen gi mbindéef kooku mooy xiyaarul anaam ba nee na rasuluna ngeen gi mbindéef ku ko way aminam ku way keneen sànq say way doo ci làqin ngërëm maam xaadimam raw na mbindeef kenn mënatu koo jot la kon kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen tàccu ma xale bu baax a baax a baax a baax eh, bi am na solo lool eh, xam naa rek pour njëkkanteeg waxtu yi ba léegi eh, ñu ànd ak firqatu Cheikh Mouhamadanil Mourtada ñoom it nañu ñëw def seen présentation ngeen tàccu ma leen bu baax a baax a baax ñu daal di ñëw jël seen wàllu ci nag wi waaw ci noonu tamit euh, ñi nga xam ne ñoo war def euh, al axbaar al wolofiya ndax day mel ni une heure jot na te xibaar yi heure bii lay jàll te gaa yaa ngi xaar l'information bi ah ñoom waaw ñoom El Hadj Mouhamed Ndiaye xawma gaa yi ñu ngi xaar li gën a fës ci xibaar yi war naa feeñ ñoom it nañu waaj nañu waaj incha allah ñu ànd ak ñoom. Euh, ci noonu rek ñu ngi ziar baax baax oustaz Mbacke ma nga leen toog moom xale yi mën nañu kanam gi macha allah bokk ci jàmbaari daara ji. waaye oustaz al mokhtar Mbacke moom it macha allah teew na jaaroon na fi waaye di see oustaz Abdou Lahad Ñang al kabir wa saxir ñëw leen di ziare bu baax a baax ci teewaa bi oustaz Ndiaye moom ma nga nee toog oustaz euh, Gaye tabafikàlla mi ngi noonu ci vert blanc bi waaw vert blanc moom daa xew waaw boo ci tegee ak kol nag tarkal la noir blanc kon tarkal la <laughs> kon ñu ànd ak firqatu Cheikh Mahamadou Murtada waaw jëmb Thiaw ak Fatou Seye. voilà man nag yooyu taxuma jóg. nanu woo ma nanu wuyu madame Mbaye. firqatu Cheikh Mouhamadou Mourtada bu fekkee mën naa gaaw rek dana gën a baax. ndax ku ne xam na ni heure loolu léegi mu jot. Eh, am na sax ñu tàmbali di yollee ko nànk-nànk ndax baa yi am nañu fi nekkoon waaye da ngay gëstu gis kenn dem kenn dem kenn dem. bu yàggee léegi mu guddi. kon nanu génne si ñu àggalee balaa gën a guddi wala ba balaa gën a naaj. Salam teewule la la la la la salaamun aleykum juleen ngeen teewule la la la la la salaamun aleykum salaamun aleykum jawhara jóg leen ngeen teeru leen la la la la la mun alaykum salaamun alaykum jawharaat yaa ngi ñëw jóg leen ngeen teeru leen la la la la la tawhiid macha allah présentation bi am na solo trop waaye li mu lamboo ci ay njariñ am na solo lool euh, xale yi ñu ngi doon jàngale ni kat man sama muuraay gi duma ko bàyyi ndax ku ne xam na ne jigéenu jullit day muuru euh, jigéenu jullit day muuru loolu am am la loolu am solo la euh, xam naa rek Eh, tabarakallah ba léegi ñu ngi commentaire ci loolu xale yi doon jàllale mu nekk lu am solo waaye nag rawatina ak Cheikh Mouhamadou Mourtada mi fi xale yi tagg nga xam ne jàmbaar la joo xam ni eh, ku ne xam na li mu liggéey Sénégal loolu jamono bu nekk dana war di ko wane di ko di ko présenté mbooloo mi ak di ko présenté mbooleem monde bi bi fa am ma eh, ndax jàmbaari l'islam la waaye ku ci nekk rek ci ñun boo làmbee sa bopp di nga xam ne si Mourtala am na lu def ci man kon way woo macha daa bokk ci way yi nga xam ni daa daa gën gën gën a gën a euh, marqué ñi toog ci mbooloo mi daa waxoon sax bu ngoonee sax ñëw ñu baamtuwaat ko ban tagg bu baax a baax Cheikh Mouhamadani Mourtada radiallahu anhu moo tax waykat woon ne woon na Cheikh Mourtada faaxar rijaal Cheikh Mourtada bahrul kamal këram ga mooy daaru jalaal Cheikh Mourtada amul moroom Cheikh Mourtada amul moroom tabeeg lewet moo di jikkoom am na ngërëm fasun waa waajoon na cheikh mor waajoon na moom cheikh murtada waa yooyu a sayida taaliba maam maam maam nan si maam nan si mu ngi ci ci majalla bi incha allah di ngeen ko jàng nga xam daal xale yi daal fu ñu toll ñu ngi bàkk seen jàmbaar yooyu cheikh mahamadou murtada xam naa ti noonu rek ñu présenté ay gan ñoo xam ne teew nan fii e, bàyyi koo ci ay wàll yu wuute e, ñu présenté leen e, ku ci mel ni al oustaz Massamba Faye Massamba Faye teew na fi ñu ngi koy dalal jàmm di ko wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum al oustaz Abdou Ahad si moom it tew na fi tabarakallah ñu ngi koy masawu coono yi ak di ko dalal jàmm al oustaz Mor Ndiaye nga xam ni moom mas na fee nekk mas naa ànd xale yi tabarakallah waaye ni ko noonu al mufattish Makkan Gueye nekk ca boori Kébémer di fa yëngu moom it tew na fi waaye al oustaz Serigne Ahmadul Muxtar Mbakke eh, moom it tew na fi al oustaz wala bokk monsieur Sidi mbay